ma tamit loo wax wax la ca des man dama doon reer wante doon reer wante kii moo ma suurloo xaw ma lan moo moo ma laalloo vidéo bi yow magum jëm yàlla bind la nga yore sa doole di ko jaay xanaa nga jaay ko koo xam mun na défendre boppam wante xale bu jigéen boo nga xamante ni bi mu juddoo ba léegi ngi tëdd ci munul toog munul wax nga dem fekk ko def ko jëf ju ñaaw ji hmm? sakku ko ñu ne way mu jëlé ci ëmb ndaysan yaay ji da tok bu mu commencé di waccu rek fekk bu am na cinq mois ëmb man tamit lima ma jaaxal ci kaa bi dafa bëri xalé bu jigeen bi ci biir kërëm lañ ko fekk violé ko kan mo am fitu ak dalu dugg ci biir kër toog fa temps boo mën a sàkku nit naam xale bu jigéen du mën a yuuxu du def dara mais fit gi rekk fit gi loolu lu jara xalaat la beneen bi mooy yaay ji nee na moom daal bi mu mujjee dem moom maanaam li muy fàttaliku ni ca la ko ci moment boobu la ko mën a dal mooy doomam bu jigéen moo amoon doom mu dem ci ngénte li moom ak aawo bi bàyyi fa ñetteel bi ak xale bu jigéen bi ko nga xamanteni mënalul bopam dara vigilance bi dess na bañu wara mëna jaar fofu ba sakku ko bu mu jëlé ci ëmb way yow yow xalé bu goor bi yow ya nek yow ya bon kay yow ya nitu safara am na nga xam dañuy dundu ni rek mais dem nañu safara bu yagga yagga yagga yagga yag yow do goor ndax goor pire sakul ken jëmu di sakku ken surtout nag soo demoon bay sàkku sax nga sàkku ko nga xamante ni maanaam yàlla may na ko mu mun a xeexal boppam mun laa affronter yow nga dem sàkku ko nga xamante ni munalul boppam dara yow yaay baadoo la ah dëkk bi tamit nii lañ koy bàyyi yaay ji nag dégg naa mu ne ñaari yeneen ñaari góor a ngi ci kër ga rakku pàppam ak xaw ma kan enquête bi na tijjee ko góor yii nañ leen defal test DNA jiiñu ma kenn waxuma la góor yi wante képp kuy fréquenté ci kër ga rek di dugg ak génn war nañ leen defal test DNA ci doom ji léegi waxuma la dara ku mënalul boppam dara nga jox ko doom lorati benn innocent boo nga xamante ne xale boo nga xamante ne laajul kenn ku dund ci sa yëfu barbaar yi ah yow yow baaxoo ci kër baaxoo ci àll yaa ñàkk jom kay yow yaay baadoola kay yow yaay mbaam hmm? yow sim ki def lii yow yow bañ naa la te musuma yaakaar ni sax dinaa bañ doomu aadama mais yow moom man bañ naa la te xawuma la gisuma la xawma foo nekk yow baadoo la pire que yàlla na yàlla def yàlla na la yàlla niit police xam yaay kan jàpp la tëj la ci kaso bi yow yow yow yow peine su amee ci dëkk bi yow lañ ko war a jox baadoola la bu mag bi nga doon gars yi euh, xale bu jigéen nag damaa gis vidéo am nii rek am na benn numéro bu mu def pour ku ko mën a dimbali dinaa ko dugal fii ku am sa loo ko mën a dugalal nga dimbalee ko ko situation bu metti la wax dëgg neex yàlla wirasoo gi la xewee ca dëkk euh, far ba euh, non lii tamit lii metti na ma tamit